ñoom ñu ngi leen di ñaan wala ñu présenté leen suñ seen saafara yi nga xam ne ñi ko xam xam nañ ko ci am solo ak am mu nekk saafara bu baax lool ci ubbeeku ci bayre ci yëkkatiku ci wàllu wërsëg koo xam ne yittewoon ko mën ko jokkoo mu ci njëg itam jàppandi ne pour ñëpp kii beneen la boo xam ne saafara la boo xam ne pour faj rab seytaane ak xeet yooyu képp koo xam ne daf la sonal wala jigéen ñi yéex a sëy wala yooyu kay itam pour jigéen boo xam ne dafa yéex a sëy mën na ko jëfandikoo incha allah ku ko soxla mën nga ko ñun ci numéro whatsapp bi incha allah. bu ko defee kon billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkee di balaax bu baax. di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di alquran karim jikko shifa ñu leen di ñaan ngeen abonné te partagé te ko am laaj mën nga ko envoyé ci numéro whatsapp boobu ngeen jàkkaar loolu ñu ñaan ak comme ni koy waxee ku am gént. demal ci page bi nga def recherche boo demee nga gis ne nga soo ko gisul nga envoyé message vocal bañ a bind bañ a woote message vocal ci numéro WhatsApp boobu incha allah dama leen tontu mu yàgg yàgg incha allah danañ la tontu buñ la tontu wutal soo toogee ay fan wàcce waatam ay réew incha allah ñu bañ a woote te bañ a bind encore. ñu ñëw ak yéen ci bunt bu am solo ci gént nga xam ne laaj yi bari na lool. ñu ci laajoon yëpp waxoon nañ leen digal nañ leen daan ko def vidéo xam naa laaj yuñ ci laaj ak complément yëpp daan ko def ci vidéo bi incha allah mu dolli ci gént dal ñu ci vélo vélo pétaan la wala tey ci la ñu ñëw allah bu dee moto dañu ci laaj tuuti rek waaye danañ ko ubbilaat benn gént boo xam ne dafa lañ ci wax incha allah bu fekkee da nga nekk ci vélo yaa ngi dawal waaye nga nekk ci ak koo xam ne koo xam la koo xam ne xam nga ni kuy diw la wala boog ngay dawal vélo romb koo xam ne koo xam la ngeen xamante bu baax gént bu baax li muy firi mooy sa diggante ak kooku yàlla mën naa dogal seen diggante eh, business boo xam ne moo xam commerce la wala lu doon wala boog mu doxal doxal seen diggante seen ngeen dem ba nekk ay famille imma tijaara wa imma nasar wala mu nekk ni àdduna mën naa dox ba seen mbokkoo daal jaxasoo léegi par exemple benn jamono mun naa dox ba nga am doom bu jigéen mu am doom bu góor mu takk doom bu góor takk sa doom wala seen ñaari rakk sëy wala daal Euh, voilà moom daal mbokkoo daal dana am seen diggante wala boog liggéey dana am sa diggante ak kooku gént gu baax baax la lii am na ku ko laajoon neen dafa gént daal dawal vélo waaye vélo dafa gudd lool egg dafa kawe vélo bi gudd gént gu baax la yadullu ala tuulil umr gudd fan lay firi gént gu baax a baax a baax bu fekkee koo xam ne nag célibataire la ba géej gi boo xam ne dafa teg bi dafa kawe lool maanaam velo dafa kawe guddaay bi ëpp comme nii baax na ci célibataire bu góor yàlla dana la may soxna soo xam ne ku baax a baax a baax wàllu diine la gént baax a baax gént dawal velo velo bu damm maanaam accident am na velo bi teg bi wala li ngay dawalee wala daal damm am na baaxul gént bi musiba la baaxul mawtu aziz aw marad aziz maanaam dana am ku tedd maanaam ku la jege koo xam ne daal di sax suñu awir ci yow maanaam nit ku tedd ci sa wet koo xam dana génn àdduna wala boog mu feebar baaxul gént ndawal fela daal li ngay euh, dafay jàngale épreuve yi xam yëpp la ci jaar ci bu baax la comme li ma waxoon ci oto ak dàll daanaka mun xawal génn gént velam gudd nag maanaam kawe lool waxoon naa ci célibataire danay firi célibataire bu góor danay firi soxna su baax ci keneen ku mu mën danay firi gudd fan waaye bu fekkee jigéen bi ëmb doom bu góor la ko yàlla di may allah baax na lool. gént yéeg ci vélo ci jànq maanaam célibataire ci jigéen li muy firi tadullu ala tafawuq wan najaax maanaam danay firi yëkkatiku ak yokkute ci wàll njàng bi wala ci wàllu liggéey gént baax a baax a baax. bu fekkee nag vélo bi dafa gàtt lool da wax naa la bu gudd dafa gàtt maanaam yéeg gi méttiwul guddaayu vélo bi demeewul noonu ci gàncax dañuy najaax fii la amal bu fekkee ci da ngay yéeg ci vélo bu gudd sa xewee ci jànq yëkkatiku ci wàllum liggéey ci wàllum la bu dee dafa gàtt yëkkatiku ci wàllum liggéey la loolu nga jàpp ci jànq laaw gént yéeg ci welaw waaye yéeg gi métti lool yéeg gi daal jafe na métti na ci lool ci ku mën a doon ñu ngi jafe-jafe ci xat-xat yoo xam ne pour nga am ci saafara wala dina jafe lool lool gént wàcc ci vélo wala wala boog bi yéeg ci vélo ak koo xam ne xam nga ko waxoon naa fële kii da dawal yéen ñaar ci nekk wala nga romb ko dugub waaye kii da ngeen a yéegandoor bu leen sax waaw koo xam ne xam nga ko danay firi léeg-léeg yàlla mën na laa dimbali sa ay objectif yëpp loo soxla nga atteindre ko aajo boo am nga mu faj incha allah loolu mooy vélo pédale bu dee moto la nag gént moto rek da gént gis ko rek li ñu firi tadullu ala safar li ñu firi tukki maanaam voyager day firi gént ku baax a baax la yenn borom xam-xam yi wax mooy tadullu ala najaax li ñuy firi mooy réussite totale incha allah bu fekkee nag da nga génn wàcc ci moto wala yéeg ci moto ci jànq ci célibataire bi jigéen jànq li ñu fi yàlla dañ la may da nga indi boog relation bu bees ci wàllu àpp ci wàllu wàllu mbëggeel balaa yaa di yàlla ci mbëggeel génn di raxas vélo nag lii am na ko ma ko laajoon ñu dafa génn moto raxas moto ak vélo ñoo yem ñuy firi génn bu baax a baax ñuy firi zawalul junuun wa tafrijul kuruub bépp jafe-jafe ak xar-xar boo amul waaye dina ko jeexal njàqara boo amul tamit dina jeex incha allah gént bu baax a baax la bi ci mujj nag mooy gént daanu ci moto gént daanu la bu jub daanu ci moto ak balam ñooy lu ñuy firi baaxul musiba bu rëy bi daanu wala nga doon dawal daanu wala nga dëkk dara wala nga ak moto ak bu mu a doon musiba mu xam ne daal yaa ngi jàll mosal dañ ci taal bi baaxul kon lii moo doon ci dawal vélo ak moto dana am beneen bunt boo xam ne ci moto rek lay wax ndax gën naa yaatu bi dafa laaj ci ñoom rek nga tax ñu ko ci tey ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné ko partage ko am laaj ñu ko envoyé ci numéro WhatsApp bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh